élage kat mi ngi toog fii am na yu muy wax yooyu noonu c'était xaw ma ban ban ban télé nekkoon doon wax. Euh, après dama ko romb ak Fadiga mais seerewu ma ko laa dama dama dama nuyu Fadiga kese ma avancé mais xëy na tamit euh, waroon naa xamul nuyu parce que euh, par modestie. comprendre nga Elaj tamit du ma la ko mais jamono ju tol toll nii ñi ngi wax man moom. mais parce que doonu ma ko nuyu sax déjà. Mm-hmm. après dañoo daje benn jour xaw ma je sais pas xaw ma fan aux Almadies am lu mu wax ma tontu ñu xaw a am benn bras de fer man man ak moom après voilà euh, ça ça s'est bien passé quoi après man wax naa ko vérité yi nekk ci man ak yoon ba mu ne ma ah yow booy kon dëgg nii nga mel da nga wax ma dafa waaye ci parle mais euh, fi may waxee mooy comme que ñoom ñoo ñoom ñoo nekk ci kaw tamit te dëkk bi dañ dañ leen déglu mm-hmm. kon donc ñoom lu ñu wax lu bëri waa dëkk bi dañuy jàpp ni loolu moo am te football comme luñ doon wax sank rek hmm. football mom yaakaar naa ni euh ñëpp ci am kàddu parce que am nañu koy suivre am nañu koy def. Hmm. am nañu ñu nekk télé am nañu ñu nekk si kaw turbine di seetaan. Hmm. kon donc ñooñu ñëpp lu ñu mënti indi rek lu ñu mënti wax ñun ñëpp nañ ko ñun ñi nga xam ne ñooy acteurs yi nañ ko jël toog xolaat bu baax. ndax li ñuy wax am na wala amul même bu fekkee ne sax amul mais nañ jéem a essayer def pour xool. ndax si c'est la bonne voie ou pas. mais mais mais est-ce que amul raison après. Euh, amul raison ci ci ci ci. le fait que moom il il était contre le fait que. waaw moom sélectionné mais après après le temps euh, avec le temps on a vu benn Ousmane bi wàccaat. Mhm, mhm. non wàcc bi. Mhm. c'est-à-dire xam nga amna yo xamné peut-être que sama éducation mënu ma permettre. ma tok devant des caméras diko ko wax. wàcc bi xeyna amna am na ñoo xam dañoo tamit. suñu juumee maanaam tey munoo nekk numéro un keneen ñëw fekk la fa yóbbu comme troisième ou quatrième gardien. y a des yoo xam ne moom ci ci ci ci ci football dafa nekk loo xam ne c'est impossible. donc loolu bi mu amee après man ah, dama dama dama dama toogaat ma xalaat bu baax parce que xëy na loolu noonu li ko indi sax xëy na peut-être yàlla comme lay waxtu tout souvent rek xëy na am na benn jour boo xam ne waroon naa def plus. mais je même bu fekkee ne si benn seconde la sax ma def plus xëy na plus boobu ma ñàkk a def woon si euh, si une seconde yooyu noonu am na lu ma yàqal lu bari. voilà kon donc souvent bu ñu bu ñu bu ñu jël faute bi comme bu ñu bu ñu nekkee fi jëkk saay wàcc bu ñu jël faute bi ne nit ñi ñoom ñoo ñu def li wala leneen non dañ jël cinquante def ko su ñun jël yeneen cinquante def. def ko feneen assumé mhm. maanaam nga assumer say responsabilités si naka. Mhm. Euh, toog ne est-ce que man am na jour boo xam ne waruma woon